wa baad asalaamualeykum wa rahmatullah euh, mbokk yi kon tey suñu ñaareelu conférence ci séminaire bi gannaaw bu ñu gisee démb déglu suñu mbokk oustaz Youssouf Ka mu waxtaanal ñu ci ziyaaratul qubuur wa aadaabuha siyaare bàmmeel siyaare bàmmeel ak ay teggiinam kon tey incha allah ñu ngi fas yéene jàkkaarloo ak beneen tomb muy tawxidul mutaabaa wa asaruhu fi taxqiqi wixdati al umma eh, maanaa wéetal wala bennale ak topp bennale ak roy ak jeexit ba muy am ci réyalisé ci amal bennoo xeet wi maanaa bennale ka ñuy topp ak bennal googu ban jeexit lay am ban rol lay am ci amal bennoo xeet wi loolu mooy suñu tomb tey ki ñu ko fas yéene defal muy docteur Mouhammad Ahmad Loox xëy na ñu bari gisuñ ko gisaguñu ko woon waaye ñu bari dégg nañu ko docteur Mouhammad Ahmad Loox mbokku senegale la boo xam ne fi ci réew mi la njëkka a Euh, lislaam ak li ñu fiy jàng ci diggante lislaam ak euh, xam-xamu luga arabiya gannaaw gi mu gàddaay dem xijaaz dem ca dëkku yonant bu tedd ba muy almadinatul munawwara continuer fa njàngam ca université daara ju mag jooju nekk fa ñu tudde ko université islamique foofu la jàngee ci faculté bu ñuy wax kulliyatul xadis faculté bu xam ne xam-xamu xadis la fay jàngale ci faculté boobu la dugg ba am fa licence mbirum xadis ak i xam-xamam gannaaw bu mu amee licence ci xam ci xadis faculté xadis mu dem beneen faculté bu ñuy tuddee al aqiida wala beneen spécialité bu wuteeg bi mu amee woon licence ñu di ko tuddee aqida ci la am lu ñuy tuddee ci la ko arab magistère mu ngi tolloog doctorat troisième cycle ci la am mu am ko ci aqida ci lu ñuy tuddee alfiraq téere la ci bind bu ñuy tuddee taqdis تحديث الأشخاص في الفكر الصوفي على ضوء الكتاب والسنة téere la boo xam ne ñiy gëstu ñiy topp yëngatu lislaam ci Sénégal ñu bari dégg nañ ko bi mu duggee ci réew mi yëngatu yi mu fi def ñu bari dégg nañ ko gannaaw bu mu amee diplôme boobu ci même université bi mu continué waat ci même spécialité bi gën ko xóotal def ci beneen euh, doctorat boo xam ne mun na mu ngi tolloog lu ñuy wax doctorat d'état ci beneen thème bu ñuy wax jinaayatu ta'wilil fasid ala al aqida gannaaw bu mu bu ko yàlla joxee loolu diplôme yooyu ak xam-xam bu xam ne wax dëgg yàlla xam-xam bu leer la bu xam ne dañ ko reconnaître ci waxuma ci Sénégal mais ci monde islamique lépp yàlla jox ko ko eh, mu mënoon a toog ci réewu arab ya université yu bari ñu ko sollicité sox soxla ko mais mu wan leen gannaaw ñëw réewam pour loolu yàlla jox ko ci xam-xam mu fas yéene jëriñ ci réewam jëriñ ci doomu réewam ndax xam euh, jëfee euh, li ñuy wax ne mbay ci sa wewu tànk moo tax mu ñëw senegal waaye su dul woon loolu wax dëgg yàlla université yu bari soxla woon nañ ko kon mbokk moomu tey incha allah jazawlaahu xayran wa madda fi umrihi wa abqaahu zuxran lil islaami wal muslimin وسدد خطاه ووفقه وإيانا لما يحبه ويرضاه moo ñuy defal conférence kon ñu bañ a guddal wax ji ñu jox ko kàddu gi bismillah wal yatafaddal mashkuran wa majuran insha allah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 وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذا درس عنوانه توحيد المتابعة وأثره في وحدة الأمة تسير خطى معالجته على النحو التالي أولا تحقيق أصلين لا بد منهما لقبول العبادة ثانيا من أدلة الإخلاص والمتابعة ثالثا من ضوابط التأسي بأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم رابعا من معوقات متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خامسا أثر توحيد المتابعة على وحدة الأمة mbokki julli bi asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi sant sunu borom tabaraka wa taala ci daje ak yéen ci jataay bii di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu bokk ci jataay yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon soññee ci ay nit ñoo xam ne bokk nañ daje ci benn néeg ci néegi yàlla yi di fàtt leen te diine yàlla ji mu bégal leen ne ñooñu malaayika yi dañu leen di peeg di leen ñaanal yërmande borom bi tabaraka wa taala itam di yëkkati seeni daraja fa malaayikaam ya di ñaan mu doon waxtu yu barkeel luñ fi dégg tam doon luñ mën a jariñoo suñ borom tabaraka wa taala baaxee ñu ñu jëriñoo ko te buñ ko defee mu sell mu nangu ko luñ fi dégg tam mu doon juumte it borom bi tabaraka wa taala jéggal na ko bind bi nag ni ngeen ko déggee mbokk mi waxe ko nii moo di bennale roy tiif ki nga xam ne dañu koy roy ñu fexe ba muy kenn ak loolu def ko lan lay jur ci bendale xeetu islaam kon loolu mooy xolu waxtaan wi ñu seddale ko ay bànqaas ba ca jiitu di bi ma tudd léegi mu di am na ñaari reyan yoo xam ne ngir yàlla nangu ak jaamu yàlla doomu aadama faaw ñaari reen yooyu dañuy sax ba noppi taxqiqu aslayni la budda minhuma li qabuli al ibada ñaareel bi ñu joxe lenn ci yiy firndeel sellal ak topp ñaari baat yu am solo yoo xam dana ñëw ci kanam sellal ak topp danañ xam luñ ci jublu ci kanam léegi min adillati al ixlaasi wal mutaabaa ñetteel bi takk ak gu dëgër ci jéem a xam roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jëfam yan xeeti takkuun la am lan moo koy réglementé bañ mën koo xam min dawaabiti taassi bi afaalihi sallallahu alayhi wa sallam ñeenteel bi yan ñooy yi gàllankoor jullit bi ba mën a dox digganteem ak topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jaamu yàllaam min muawiqaati mutaabaati rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juróomeel ba ana ban jeexit mooy am man meññet mooy ñor su fekkee ne bennale nañ ci ñuy topp lan lay jural xeetu lislaam kooku mooy asaru tawxid al mutaabaa ala waxdati l umma kon ñu tàmbalee rek ci tomb bi ma njëkk a junj mu di taxqiqu aslayni la budda minhuma li qabuli al ibada ñaari reen yooyu mënuñoo ñàkk ngir sa jaamu yàlla ñu nangu ko ba ci jiitu moo di al ixlaas ñaareel ba moo di tajridul mutaabaa ki ngay roy mu doon kenn te ñaar yooyu mu di sellal ak top ñaari ponk lañ ci lislaam yoo xam ne dañuy wax ne lislaam jëpp ci seen kaw la tegu kon dana jaadu ñu xam mooy lan al ixlaasu maanaahu an yakuna diinu kulluhu lillah sellal moo di li ngay jëf lépp mu doon ngir yàlla yàlla yi kese tax lay def doomu aadama amu ci ab cër kon sellal dañuy wax ne mutaalliqun bi maqaasidi almukallafin mukallaf miy jëf lam jublu ci jëfam foofa la sellal aju su fekkee yàlla yi nee na tax muy def jooju jëf moom la ñuy tuddee jëf ju am ixlaas jooju jëf la ñuy tuddee jëf ju sell waaye su fekkee am na leneen lu tax muy jëf nag jooju jëf duutu tudd sell mutaabaa al mutaabaa boroom xam-xam yi dañ koo xam la ñu ne an yafaala al mukallafu misla ma faala annabiyu sal allahu alayhi wa alihi wa sallam على الوجه الذي فعل أن يفعل المكلف مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي فعل kon topp nañ koy firee mooy mukallaf bi bi muy jëf jaamu yàlla ji mu defe ko ni ko yonent la yonent ba sallallahu alayhi wa sallam def mu def ko te defe ko nam ko defe def lam def te defe ko nam ko defe loolu lañuy ñuy tudd mu taabaa kon suñ neetee topp rek jëratul ñu di ko firi loolu lañ ci jublu suñ neetee sellal it jaratul di ko firi loolu lañ ci jublu topp kon topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nga def lam def te defe ko nam ko defe sellal mooy li ngay jëf yàlla dong mu tax leneen taxul al ixlaas ak mutaabaa nag mu di sellal ak topp boo leen seetloo ñoom ñaar ñooy firi maanaam laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah wala ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaari seede yooyu nga xam ne bu jëkk bi li muy firi moo di kenn dong dong dong la war a jaamu ndax kooka jaamu ko day jëriñ ñàkk koo jaamu day lor te kenn dong la war a gëm ni mooy ndawul yàlla mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari baati seede yooyu nga xam ne mooy ponki lislaam yi lay dugal ci lislaam yooyu boo ko seetloo moom la topp googu di firi ak sellal googu ndax ixlaas bi mooy yàlla kese tax topp gi moom du mën a am li fekk du dangaa gëm ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dong mooy ci yàlla yabal ci yow ibnu alqayim rahimahullahu day wax ne huma tawxidaani la najaata lilabdi min adabi illahi illa bihima توحيد المرسل عن الشركاء والأنداد وتوحيد المرسل بتجريد المتابعة له mu ne ñaari tawxiit a ngi ñaari wéetal yoo xam ne jaam bi du mën a mucc ci mbëgalum yàlla lu dul su amee ñaari tawxiit yooyu wéetal bu njëkk gi mooy nee na nga wéetal ka yónnee ko mooy sunu borom tabaraka wa taala nga wéetal ka yónnee bañ koo bokkaale dara bañ koo wutal ndend bañ ko wutal moroom yàlla sax ma ni su ko wutal moroom waaye buñ nee bul wutal yàlla ndend wala bul ko wutal moroom mooy bul jël la yàlla yeyoo di ko jox keneen ku dul yàlla wala nga di ko jox leneen lu dul yàlla ñaareel ba nee na mooy nga wéetal kañ yónni gannaaw boo wéetalee ka yónnee wéetalal kañ yónni ci boo dee topp nga topp ko moom donc ñaari tawxid yooyu nee na jaam bi du mucc fa kanam boroomam lu dul su fekkee wér nañ loolu nag dafa am ay tegtal yu bare bari yu wane ne ñaari tomb yooyu mënuñoo ñàkk mu di sellal ak topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy roy ko firnde yu bari yoo xam ne ci alquran ak sunna lañ loolu moom la ñuy gis ci tomb ñaareel bi mu di lenn ci adillat al ixlaas wal mutaabaa suñ doon xool ay adillaam ci alquran danañ gis waxi sunu borom tabaraka wa taala ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا amul kenn ku gën a rafet diine koo xam ne daa jël boppam jox ko boroomam dafa jël boppam jox ko boroomam kon moom bi la bindoon nga jël sa bopp delloo ko ko boole ko ak rafetal maanaam jëf-jëf ju baax topp yoon wi nga xam ne ci la yàlla jaaral jaar loo woon yonentam bu màgg boobu di ibrahima alayhi salaam nga xam ne ci aw yoonam ci la muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaar ak yeneen yonent yi mu di wéetal yàlla ak are loolu ci seen biiri xeet kon ñaar yooyu boo leen seetloo loolu lay joxe moo tax ibnu kathir bi muy firi aaya boobu def ne ay أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا nee na wa man axsanu diinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin nam ko firee mooy koo xam ne sellal na jëfam sellal goo xam ne ba muy jëf ak ngëm yàllaam moo tax muy jëf sàkku tuyaaba moo tax muy jëf wa huwa muxsinun mu firee ko mu ne ay ittabaa fi amalihi ma sharaahu llahu lahu ki rafetal nee na mooy ki nga xam ne dafa topp li yàlla rëdd ne jaaral fii mu ne wa ma arsala bihi rasulahu min alhuda wa diini alxaq mu boole ko ak topp li yàlla yebal ab yonentam ne ko loolu mooy diine gi doon dëgg mu jottali ko mu jël loolu topp ko mu teg ci ne wa haadaani chartaani laa yasixu amalu aamilin bi duunihima ñaari charte gi yoo xam ne kenn du mën a jëf jëf ja di baax lu dul su fekkee ñaari charte yooyu daje na ci moom mu teg ci ne an yakuna xaalisan sawaaban wal xaalisu an yakuna lillah wa sawaabu an yakuna mutaabian lisharia nee na faw mu nekk lu sell faw mu nekk it loo xam ne lu jub la lu sell li nee na yàlla kese bu tax mooy loolu li jub itam nee na mooy nga topp sharia li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëdd mu teg ca ne fa yasixu zahiruhu bil mutabaa nee na kon bittib jëf ji day daal di wér ci kaw topp gi mu topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa baatinuhu bil ixlaas nee na biir jëf ja mbóotum jëf ja itam day daal di wér ci sababu sellal gim sellal kon ñaari yooyu ñooy daje jëf ji door a moo tax mu ne fa mata faqada al amalu haadayni chartayni fasad saa boo xamee ne jullit bi jëf na jëf mu ñàkk benn chart ci ñaari chart ñii muy ixlaas sellal yàlla tax wala mu ñàkk a roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëf ja nee na su ci lenn amee jëf ja yàqu na amatul njëriñ kon kooku benn firnde la ci yuy firndeel ne sellal ak topp mënta ñàkk ci ji diine moom beneen aaya borom bi tabaraka wa taala day wax ne qul innama ana basharu mislukum yuuxa ilaya annama ilahukum ilahum waxid faman kaana yarju liqaa rabbihi falyacmal camalan saalixa wala yushrik bi cibaadati rabbihi axada wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada képp koo xam ne ci aaya boobu li muy wax képp koo xam ne yaakaar na ne dana dajeeg boroomam ëllëg nee na na jëf-jëf ju baax te bañ a bokkaaleeg boroomam dara te bañ a bokkaale ak boroomam dara ibnu kathir bi mu fii aaya boobu li waxoon ci aaya bi jàll rek la wax daf ne maa kaana muwaafiqan li sharcillahi kooku mooy amalan saalihan li dëppoo ak sharia bi yàlla rëdd ne jëfe leen ko nii kooku mooy jëf ci baax ñàkk gee bokkaale wala yushriku bi ibadati rabbi ahada mu ne wa huwa alladi yuraadu bihi wajhullah mooy boo jëf joo xam ne dañ cee jublu jëmmi yàlla am ci ngërëmul yàlla waxdahu la sharika lahu mu teg ci ne wa haadaani rukna al amali al mutaqabbal ñaar ñii ñoo ñaari ponki jëf ji nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koy nangu an yakuna xaalisan lillahi sawaaban ala shariati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu sell yàlla kese tax jaar ci yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëdd kon boobu aaya ci suuratul kaf ba tey daf lay feddlil ne ñaari ponk ñooñu mënuñoo ñàkk su ci benn ñàkkee rek jëf ja dafay daal di yàqu beneen aaya borom bi tabaraka wa taala dafay wax ci suuratul mulk bismillahi arrahmani irrahim tabaraka alladi biyadihi almulk wa huwa ala kulli cheyin qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا moom borom bi tabaraka wa taala moo bind dund ak dee ngir mu nattu leen kan ci yéen moo gën a rafet li jëf ayukum axsanu amalan waxul ayukum aktaru amalan néewul kan moo gën a bari la jëf wala kan moo gën a gaaw ci jëf waaye kan moo gën a rafet jëf kooku la natt bi nekk alfudayl ibnu iyaad rahimahullahu taala bi mu jàngee ayukum axsanu amalan kan ci yéen moo gën a rafet jëf daf koo firi mu ne axlasuhu wa aswabuhu jëf ji gën a rafet nee na mooy ji gën a sell te gën a jub fa qiila lahu ya aba ali maa axlasuhu wa aswabuhu ñu ne ko waaw eh, lan mooy bi gën a sell gën a jub qaal إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل mu ne jëf day bu fekkee ne dafa sell kiy jëf yàlla rek a tax muy jëf waaye nag jubul jëf ji jubul jaarul ci yoon nee na jooju jëf gis ko nangu wa ida kaana sawaaban wa lam yakun xaalisan lam yuqbal xata yakuna xaalisan sawaaba bu fekkoon ne jëf ji dafa jaar ci yoon ni ñu koy defe noonu la ko defe waaye sellut yàlla taxul nee na ba tey jëf gisu ko nangu lu dul dafa nekk di lu sell nekk di lu jub mu ne wal xaalisu an yakuna lillah wa sawaabu an yakuna ala sunna la sell nee mooy li yàlla tax la jub mooy li jaar ci yoonu sunna kon mooy li nga xam ne dafa roy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon jëf ci ñaari ponk yooyu ñooy daje mu doon wér topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay yi koy tegtale bari na lool borom bi tabaraka wa taala mi wax ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah wa yaghfir lakum dunubakum su fekkee ne da ngeen a bëgg yàlla topp leen ma yàlla mooy waxub yonentam ne ko wax leen ne leen su fekkee ne da ngeen a bëgg yàlla jullit bu nekk dafa naa day wax ne man de bëgg naa yàlla ab jullit ku ne ko bëggoo yàlla fitna taxaw kon jullit bu ne mi ngi wax ne bëgg na yàlla mu ne leen nag su fekkee ne bëgg ngeen yàlla kon topp leen ma su ngeen ko defee yàlla dana leen bëgg dana leen jéggal itam seen i bàkkaar kon wax ji rek doyul bëgg naa yàlla bëgg naa yonente bi sallallahu alayhi wa wax gi kese doyul waaye am na lu koy firndeel moo di fattabiuni topp leen ma su ngeen ma toppee yàlla bëgg leen ibnu kathir rahimahullah bi muy firi aaya boobu lu mu wax daf ne hadihi al ayatu alkarimatu xaakimatun ala kulli man kulli man iddaa mahabat allahi wa laysa huwa ala ala altriqati almuhammadiya fa innahu kadibun fi dacwaahu fi nafsi alamr xata yattabica alsharca almuhammadi والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله nee na benn aayaa ngi boo xam ne dafay atte benn atte bu dog ci képp koo xam ne da nga ne wuyeey bëgg nga yàlla te fekk jëloo yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu nekk sa tariqa képp koo xam ne nee nga bëgg nga yàlla nee na te jëloo tariqa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi yoon wi mu jaaroon mu doon saw yoon nee na kooku waxul dëgg lam wax nee na du dëgg li fekk nangu wut a delsi gëstu seet fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon mu jaar foofu ci mboolem ay waxam ak i jëfam kon ci jaamu yàlla royu kaayam mooy doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam cheikh saadi rahimahullahu ci aaya boobu daf ne wa hadihi al ayatu hiya al mizanu allati yu'rafu biha man ahabba allaha haqiqatan wa man iddaa dalika da'wa mujarradatan فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه nee na bii aaya mooy balance bi ñuy xàmmee koo xam ne dafa bëgg yàlla dëgg dëgg dëgg ak koo xam ne dafa wax ci làmmiñam rek ne bëgg na yàlla mandarga mi ñuy xamee ku ne bëgg na yàlla te lam wax nekk dëgg nee na bu ne bëgg na yàlla ba àggal dafay topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat nee na yàlla moo def topp yonent boobu yi ci fam jaaroon ak lim doon woote loolu moo doon yoon wi nga xam ne képp ku bëgg yàlla bëgg la képp ku bëgg ngërëmul yàlla ci yoon woowu rek nga mën a jaar mënoo jaar ci weneen yoon borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ba tey ne fala wa rabbika la yuminuuna xataa yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajiduu fi anfusihim xarajan mimma qadayt wa yusallimu taslima borom bi tabaraka wa taala mooy giñ ci boppam ne ko ñii de duñ jëm mukk li feeg lépp lu dox seen diggante lu aaje atte ci yow lañ koy atte aussi lépp lu doomu aadama ji di atte wu ci diggante boppam ak bakkanam ci digganteem ak yaramam ci digganteem ak diineem jëfiinam ci addunaam ak lu aju ci àllaaxiraam digganteem ak njabootam digganteem ak ay dëkkandoom digganteem ak ay njiitam digganteem ak ñam jiite su ne gëm na yàlla ngëm yàlla wérul li feeg du atte yooyu yépp daf koo boole dikk ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu xamal ko nan lañ koy attee te atte boobu su ko xamee ba di ko jëfe it du doon loo xam ne day ànd ak xatu dënn wala di ko def ba noppi muy ànd ko naqar wala ngay jàpp ne am na leneen loo xam ne boo ko toppoon mooy gën a jub waaye dafay doon loo xam ne da ci ànd ak gën ànd ak daluk xel ànd ak bànneex ànd ak jël boppam jox ko diine ji jox ko sharia bi gëm ne lii rek mooy li baax leneen lu dul moom baaxut ngëm gi du mën a baax mukk lu feggu demuñu ba àgg foofu moo tax ibnu kathir bi mu koy firi loolu rek la wax mu ne yuqsimu taala bi nafsihi alkarimati almuqaddasa أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا borom bi tabaraka wa taala ba tey mi ngi wax ci soññee rek day ci topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne falyaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim